salaamaaleykum mbokku internet Fati Sport ñoo ngi leen di nuyu di leen jaar bu baax a baax di leen jox seen waay di amaan te di dellu siwaat euh, ak yéen tey nag ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci benn joueur bi nga xamante ne Aliou jamono ji mu ngi ko teg bët ngir mën ko jël ci équipe nationale yokk doole mu doon latéral gauche di football fële ca OGC Nice fële ca France Ligue 1 kooku nag mu ngi tudd Malang Sarr Malang Sarr tur bi du ñàkk ne am na ñoo xamante ne dégg nañ ko waaye tey kooku lañ leen fas xamale Malang Sarr mu ngi juddu le 23 janvier 1990 Nice Côte d'Azur France mom nak euh, franco-sénégalais la di jouer ci poste latéral gauche mom nak fofu muy jouer ci Nice sax mu nga fa nek ak Sénégal bi nga xamantene ne mu ngi fay doga di Moussa Wagé mom nag nga xamantene Barcelone moko ko ba saison bi avec euh, option d'achat Malan Sarr nag euh, ñuy fàttali rek bi mu six ans le rejoindre club bi di Nice ndaxte fi mu dëkkee nak soriwul lool centre d'entraînement bu Nice bi ay parents nak ay sénégalais lañ papam di chauffeur livreur nek Nice formation mieux nag mu ngi équipe OGC Nice saison 2015 2016 le commence si équipe B bu Nice joué 9 matchs 2016 2017 toujours si équipe B bi joué 3 matchs 2016 2017 ci la ñëw équipe première bi joué 31 matchs dougal Ben 2017 2018 24 matchs waaye dugalul Ben 2018 2019 mu joué 35 matchs avec les aiglons la ñuy Nice mu 2019 2020 bi nga xamantene ci lañu nek ni nii joué gum na 16 matchs ci euh, championnat bi mu tambalé ba tay 13 comme titulaire 3 comme remplaçant dougal benn but am benn carton jaune loolu nak mu nek lu am solo ndaxte défenseur bu bariwul carton jaune la koku nak euh, lañ leen euh, doon xamalé rek ñu ñew rek ci li nga xamantene mom moy joueur bi qualité am gis nañu né mbëkk bal aérien ay na ci anticipation tamit ay na ci gis nañu né ko xamantene kuy démarqué wu bu baax la kuy apporter le surnombre ci kaw attaque bi di jappalé ay attaquant am ci ay montée yu am solo centre mi tamit day faral di mobile euh, malansar Sarr boobu ñuy rek comme double nationalité la am française ak euh, sénégalaise mom nak jot na football ci équipe nationale ñu ndaw ñi nak ci 2014 2015 joué na ci moins de 16 ans bi équipe nationale bu France joué fa 9 matchs am benn but 2015 2016 mu joué moins de 17 ans yi am 11 matchs double benn but 2016 mu dem ci moins de 18 ans yi am 4 matchs 2017 mu dem ci moins de 19 ans yi am 10 matchs 2017 batai nak mu ngi ci espoir bu équipe nationale bu France joué na fa six match loolu lay woon nag ne kooku moom jàng na les b.a-ba du football rampe na jaar na ci catégorie yëpp surtout ci centre de formation yi nga xamante ne ay techniciens yu xam na ñuy jubbante joueur mu doon joueur boo xamante bu ko Aliou Cissé mu ne am ci équipe nationale du Sénégal dina neex loolu ubbi na nag porte yi ci équipe nationale du Sénégal waxtaan bi nag ñu ngi koy eggali Aliou Cissé ki nga xamante ne moom mooy Boulaye Dia Malang euh, Sarr nii nga xamante Sénégal day nag bu ko amone dina nek ko xamante dina mën a Youssouf Sabali ñuy fatali rek ne joué na lu toll ci cent matchs ci diggante championnat coupe nationale coupe de la ligue ak compétition continentale dugal trois buts ki nak moom mooy Malansar ñu bàyyi leen rek eh, ngeen régalé wu tuuti ak vidéo xam tuuti Malansar ci qualité ba benen yoon inshallah

jaaxit dina yëngu na tar na metti na saf sàpp amul set